fan yu ñu génn doon nañu coow kilifa ak ki nga xam ni moom mooy Simon mu jëm ci ay wàllub vidéo lépp jëm euh, ci li nga xam moom mooy trafic passeport di lijjanti ay tukki waaye ñoom dañoo mujjee daanu ci ay vidéo yoo xam ni dañ ko génne woon ba tax na mouvement Y'en a marre bi nga xam ñaari rappeurs yooyu ca la bokk muy kilifa ak Simon nee nañu saa yu ñu defee benn conférence de presse lépp dañ koy teg ci ndodd waa leeral leeral di site internet boobu nga xamante ni moo fi ne nee nañu ci ginnaaw te vidéo yi nga xam ne dafa soxal kilifa ak Simon leeral ñoom ñoo koy faral di génne kon daal ñoom ñoo nekk ci ginnaaw dil boobu léegi nag gannaaw waa Y'en a euh, bi ñu waxee lu ni mel ñoom waa leeral def nañu benn annonce nee nañu daal ñoom seetlu nañ ne mbirub kilifa ak Simon saa yu ko waa Y'en a di waxee seen conférence de presse dañu ñu ciy takkal waaye de ñu ngay artu waa Y'en a marre na bu ñu moytuwul bu ñu leen bàyyiwul di leen tudd ñu këccët leen ci am na fukk ak ñaari vidéo maanaam douze vidéo yoo xamante ni ay mbir yu doy waar moo ci ne te bu ñu ko génnee dëkk bi dana tàkk lool te dana metti ci ñoom kon waa leeral point net dànkaafu nañu ñii di Y'en a marre nañ leen génne ci seen i wax nañ leen génne ci ay passeport Simon ak kilifa ndax ñoom seen ŋaññi newu ci bu ñu leen toppee nag ba ñu sa si miir bi douze vidéo yi nga xam ni yor nañ ko danañu ko génnee te ñëpp ñu dar seen gémmiñ